waaw maa ngi dolli ziar. waaw lu ma fi waral mooy. waaw. waaw lii tiis la bu ñëw wàcc suñu kaw mu bokkoon ci làmb mu mu nekkoon suma xarit tamit xaritoo bi daal yàggul parce que ama neex a ko indi si période yu may taxawal combat ma doon taxawal combat am ak euh, caatu yaraax teg waxtaan man ak moom ba combat am di waaj a taxaw man maa ko doon taxawal moom caat bu yaraax suma juumul waaw di ko jaale axlu làmb di ko jaaxle di ko jaale population Tëngéej yëpp ma teg njaal ci loxo ama neex moom dëgg ma jox numéro nii man bi ñu ma woowee démb ne ma lii am na waaw du ñu def daal du sant yàlla delloowaat lépp suñu xel ci yàlla xam nga. waaw di wax daal jàmbaar dem na daal nit ku baax la te chaque guddi ñu ngi doon waxtaan maa ngi koy jaale Sénégal yëpp waaw lii daal lii daal bi mu toll daal mënu ma wax daal bi mu toll boobi daal ay vocalam sax mu ngi nii suma téléphone lii kenn kii mbiru yàlla daal la daal ñu ngi koy ñaanal daal yàlla ma suuf sedd si kawam waaw di ko jaale njabootam yëpp waa këram di ko jaale Tëngéej di ko jaale limousine bi tamit ndeysaan maa ngi koy jaale maa ngi koy jaale surtout limousine xam nga ama neex képp ku juddoo Tëngéej rek dëkk ci làmb rek maa ngi la koy jaale daal vraiment. la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالي برم لا إله إلا الله فالبدل وانك مام لامب فال مام بام yàlla ziar bu wér jëwrin woy Papa Yada sama xarit la woon sama mbokku taalibe la woon bu wér a wér mbokku taalibe la boo xam ne ku dëggu woon la Papa ah, Yada tey ku ñëw fii rek xool di nga xam moom nu mu meloon daal waaw te nekkoon na nit koo xamante ne nii ku yëgoon doomu aadama la daal waaw nit ku dëggu daal ku yëg doomu aadama la woon ndax tey soo xoolee fii nii rek di nga xam ne lu baax rek a am solo ta moom ci loolu la nekkoon te tëngéej gi yépp muy xale di mag di góor di jigéen tey ñëpp a ko teewlu. ñëpp a koy ñaanal di ñaan nag yàlla suñu borom mi nga xamante ne nii lu am lu ne moo ko dogal fi mu nekk moom ndeysaan nit ku baax la woon koo xamante ne ku yaatu ku mënoon defante ak doomu aadama ku mënoon waxtaan ku amoon yëg-yëgu doomu aadama barki Serigne Touba ku amoon yëg-yëgu doomu aadama lu nit xewle lu ne moo la siy jiitu jaajëf. waaw saa waay moom bàyyi saa waay moom daanaka moom bàyyi barki sax xam nga waay bàyyi xam nga góor yàlla gëmut góor yàlla gëmut xam nga góor yàlla gëmut làmbool quoi barki Serigne nit ñëpp barke maam Serap Fall. góor dem muy taalibe borom ndigal bi muy taalibe borom daaru bi muy taalibe baay mu kabaroo foo dem am na baay mbokk taalibe barke sëñ Touba nga saay ñi ko teewul nii ñëpp ku si nekk xam waaw am nga lu si xam moom loo xam ne nii xam lu baax la woon war na sëñ Touba Mbacke rijaal la bàyyi billaay wallaay xoolal joorin góor yàlla dem na barke sëñ Touba mais nag xam nga moom waaw xam rek dama arama mu ne am ngay ayib quoi mais rijaal ba góor yàlla bii nii barke sëñ Touba dafa ma ñëpp la manqué kenn mënu taxaw ne sama gaañ la moom kese gaañ nu ñëpp la nit ñi ñëpp la barke sëñ Touba rijaal waaye rijaal baay woon na borom daaru Muxti saa yi gars yi xoolal mënuñu sa wax nii baax xam nga rek waaw yaa gën a xam ko waaw woon na sëñ wal borom baax la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha waaw ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. suur bi Souleymane la. waaw. papa yaa daaw sama nit ku waaw nit ku ma jege woon la daal. sama xarit la woon sama lépp la woon daal maa moom ñu dendee kër fii jokkul aussi man dàngu laa dëkk mais daanaka sama genn wàll yëpp jokkul lañ nekk parce que man fi laa juddoo fi laa yaroo ndooyeen laa dëkk. waaw nit ki daal xam naa ne action bi moom nu mu demee moom metti na daal parce que jour boobu noonu maa moom ñoo nekkoon doon àll après ba mu fa jógee noonu ma gis ko si guddi gi muy delluwaat léegi ba muy delluwaat noonu instant bu ma fekk dara la mooy jaay xar si guddi gi noonu ba muy wàññeeku xam naa di ñëw xam nga si la su euh, ndogal suñu borom egg si si la defee accident boobu noonu benn euh, ndaraan bu tegoon foofu noonu si la dugg daal après tuuti si laa gis oto sapeur bi dugg génne jaar suuf tunnel ba man boo xaw ma sax la après bañ xëyee noonu si laa dégg ñu ne Assane Diop xaw moo def soog xaw demee noonu xaw ma daa nekk daal la commande xam nga et daal parce que affaire bi daal métti na lool metti na lool mais dañ koy sant yàlla suñu borom rek waaw. ah ñu ngi cay ñaanal fi mu fi mu dem yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla oyofal suuf si kawam yàlla ay laajam yàlla oyofal ko ko lépp li nga xam ne rek dina ko fekk si biir Bambel rek yàlla na oyof si kawam yàlla na ko suñu borom teeroo aajanay Firdawsi parce que ñëpp yéenewuñu ko woon lii parce que mbër mu amoon avenir la mbër mu ñu amoon yaakaar la si moom parce que defoon naa ason Assane moom mooy référence su Tëngéej quoi. la la la la